السلام عليكم ورحمة الله. بكي سنغال بك أدنو بك إنترنت يا. سن بك ولا سن خالد أستاذ طه خادم القرآن في مدرسة سيدنا عثمان بن عفان. بين بلاتفورم ناشونال. بعهم سن داري ينعا هم نجور أوريجين داري. يور داري تشاني. نجوي فسيه نه تهاو بور ديمبل سن بكو suñ bokk sañ daara yi nekk ci kaso bi dañoo dem nag yaakaar na loolu amuloon mais ñu dem yëg na am na am nañ fa biñ demee nag fii ci camp pénal ñu fekk leen fa ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu bindal ñu list boo xam ne dañ ne ñoom lii lañ bëgg ñu leen li ñu utal wax ñu utal leen nag ñoom dama yaakaaroon na ceeb da ciy bokk mais ay téere lañu wax dañu nañ leen utal cinquante téere yaasin yàlla dogal na sëñ daara jaayante nañ ba ut ko ñu ne nañ leen utal cinquante téere xasamia warsh yàlla dogal na sëñ daara yi ut nañ ko nañu utal 20 téere Bulughul Maram yàlla dogal na sëñ daara yi ut nañ ko nañ leen utal cinq kurus yàlla dogal na sëñ daara yi ut nañ ko nañu utal sijaada yàlla dogal na sëñ daara yi ut nañ sijaada yi nañ leen utal euh, jàllaabe yoo xam ne dañ koy jullee yàlla dogal na sëñ daara yi li leen wa ñooñu bindaloon lépp ut nañ ko benn daal moo des mooy rajo boo xam ne rajo pour dañ cee bëgg a yóbbu seen prisonnier pour julli ñi nga am ci ñu koy laaj nag pour ñu indi ko waaye incha allah bu ñëwee tamit ñu yóbbu ko ci prisonnier bi yóbbu ko ci biir prison bi ñu cay jaamoo yàlla incha allahu tabaraka wa taala ak euh, ceeb bi nag ut nañ ci lu mat euh, onze sac onze sac riz ut nañ meew cinq sac ut nañ kafe utal nañ leen tàndarma lu mat cinq paquet utal leen euh, lu mu tudd suukar suukar tamit goros lañ leen yet incha allah loolu nag ñu ngi koy def ci ndigalu suñu kilifa mooy waa madaarisul quraaniyatul asila pour lan taxaw rek ko amna ne caabi féetee na ko yow mi nek ci biti da nga wara jàpp na yang ci bir pour nga société sociale ak ñom dimbale len dimbale yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale alquran jàng yàlla alquran dafa wax ne wa taawanu ba'da a'udhu billahi minash ashaytani rajim wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan na ngeen dimbalante ci bax ak ragal yàlla waye bu len digel dimbalante ci lo xam yàlla bugu ko moy bakkar lu lay jëmele ci yàlla wax ne ki jël alalam diko dépasser ci yoonu yàlla mathalul lladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba waye nak wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim yàlla nee ki nga xamne da fay jël alalam diko dépasser ci yoonu yàlla dépense bobu mi ngi melni ku ji ben pep ceeb pep ceeb bobu day sax bu saxé ñaata dugub lay am ben pep dugub fukk gub lay am gub bu nek am témèr 700 yàlla néna ben bo joxe dama la kay multiplier 700 néna wallahu wallaahu yow mi nga xamné da ngay def bonus yàlla mo dakk doxe bonus bo joxé ben sarax yàlla néna 700 la lay fay néna nak yàlla néna sama bonus ma xamni mu koy joxé te sama wër sama xéwal dafa yaatu maa ngi bàyyiloo xel rek ñi nga xam ne nag dañuy joxe nit ñi ay sarax ba pare di leen yëjji wala ñu leen ñaax alladina yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi summa la yutbiuna ma anfaqu mannan wala aza ñi nga xam ne dañuy wala masalu ladina yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi euh, da ngay joxe sa alal ba tofal ci di ñaax ki nga koy jox wala nga di ko xeeb wala nga di ko yëjji wala nga yaakaar ne yaa ko tane déedéet moom mi nga xam ne da koy jox yàlla moo tax nga koy jox yow mi joxe na yàlla tax parce que ki ne la ngir yàlla nga ne ko am yàlla jox la loolu baat tawxid la taw tawxid la kon nag li ñuy wax ci dimbali mooy sëñ daara yi ñëpp ngi taxaw association bi ay kilifa ñoo ko jiite ñoo ñu yónni nañu lii incha allah suba le 29 jeudi en 10 heures dinañ ko yóbbu fii ci camp pour jotal ko suñ mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci biir mbokki sëñ daara yi nekk ci biir pour yàlla dogal Euh, ñu xam ne am na seen mbokk yi nekk ci bit yoo xam ne fàttewuñ leen loolu mooy initiative bi euh, euh, waaw. waaw bari na ay programme yoo xam ne mi ngi ci sunu kanam ñun sëñ daara yi sëñ daara yi dañoo nekkoon njaboot goo xam ne dañu doon nelaw léegi nag kii nelaw da nga war a bàyyi mu nelaw bu ko yee njaboot gi doon nelaw nag mooy sëñ daara yee nañ leen. dañu danañ bëgg sëñ daara yi yi mu tëleen ticc parce que plateforme bii ñu def ak initiative bi am na yeneen yu nekk ci kanam incha allah bëgg nañ prisonnier prison yi danañ dem ci prison yi nekk ci senegal yëpp yi ñu xam dinañ ci ànd ak nag ressortissants yi nekkoon ci daara yi ak bonne volonté yi nga xam ne daara moo leen produire ñi nekk ci marché yi nekk ci société bi di dund te daara produire fi lu bëri ñooñu danañ leen impliqué ci liggéey bi danañ ci dem tamit suñu plate euh, yeneen activités yi nga xam ne mu ngi suñu kanam mooy organisation yi nga xam ne ni sëñ daara yi def nañ ko actuellement sëñ daara yi fi mu toll nii dañoo doon benn boole seen kàddu ci ay ci association yoo xam ne association yu wóor la ñu am seen cotisation yu dëgër pour lan ëllëgu réew mi bu ñuy wa laajaat baatu réew mi sëñ daara yi bokk ci ñi nga xam ne seen carte yi duñ ko tasaare dañ koy boole mu doon benn te loolu mooy organisation bi nga xam ne mooy bi gën a rëy sëñ daara yi incha allah élection bi jotee danañ boole seen carte yi mu doon benn ñu déglu nag ñu déglu nag ba xam fan la ñu waa réew mi jëmee dañu bëgg a humilier wala dañuy bàyyee ak suñu conscience ñu bokk ne bi ñuy waxtaanee daara ci réew mi ci république bi daara daf fi nekkoon mag ñi nekkoon fi ñu waxtaan ba bàyyi fi daara toléré ko may ko tolérance donte na amul autorisation léegi nag tolérance boobu daara am ñu gis ne traversé nañ fi ay jafe-jafe daara jooju nag ñoo jógaat boole seen doole boole seen kàttan di def ay dimbal yu mel nii pour seen force ñoo ñëpp xam ne daara du benn mbir moo xam ne dañ ko war a teg nee daara benn luy defar la luy defar société la luy defar entreprise la luy defarum réew la luy defar adduna la mais nag yaa lay taxaw mi yaa la yaa lay te nit ñi yëloon nañu xam di nekk ci daara te daara léegi ñëpp ko Sénégalais yëpp dañ ko résevoir seen bopp Sénégal yëpp dañ ko nangu parce que ñoo société bi ñoo préparé pour téye daara. Hmm. waaw foofu lañuy ñuy commencé ci biir Covid bi. bi ñu demee ba mu métti dañoo dajaloo woon ñu ne sëñ daara yi nga xam ne yàlla dogal na ñu am ay moyen nañ dajale ñu dajale lu mat foog naa vingt cinq daara ñu dimbale leen sëñ daara bu am moyen génne génne ñu dem dimbale daara yi nga xam ne amuñu doole. man man mii sama daara yàlla dogal na daan doon naa génn ay ceeb di yóbbu ci yeneen i daara kon solidarité boobu mu ngi ci biir daara yi beneen bi tamit mooy duñ ko yemale tamit ci prison prison yi parce que suñ mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci biir. buñ mënee xam li leen fa téye ci wàllu ñu utal leen avocat ci wàllu ñu war leen taxaw bañ génn tamit incha allah ci fi ko yoon jaarale fi nga xam ne fa la yoon wax ñu jaar fa danañ ko jéem. beneen bi yeneen prison yi nga xam ne xam nañ leen bu ñu amee ndimbali dañ fa yóbbu ak ñi nga xam ne ndimbal dafa yell ci ñoom ñi nga xam ne alxuraan tudd na leen ñooñu ñëpp incha allah ndimbali du yem ci daara ji kese mais dañoo bëgg mu yaatu ba daara ji ñoo xam ne daara ji nekkul loo xam ne dafa nekk ci roq bi rek ñu koy romb di ko maasale léegi ay jeunes ñoo ñoo judd màgg ñii ñoo doon jàngandoo alxuraan ñoo bokk benn génération ay intellectuel ñu ngi ci biir daara ji borom bi xam-xam ñu ngi ci biir daara ji ñu yeewu ñu ngi ci biir daara ji ñoo xam ne yemuñ ci njàngum alxuraan kese jàng nañ lépp luy defar àdduna ba pare yàlla jox leen lu gën mooy alxuraan ñu téye ko boole koog war a taxawu askan wi taxawu réew mi taxawu diine ji macha allah. li ñuy tàggoo rek mooy am na benn numéro téléphone boo xam ne ku ci bëgg participer ndimbali day continuer. numéro bi mooy numéro suñu secrétaire général mi Abou Ahmed euh, numéro am 77 la 657 30 21 ku ko ci woo moom dina jokkoo ak yow loo ci def incha allah day dem ci kaso yi te kii moom macha allah ñun association ñoo ko jox wàllu social bi moom moo ko yore donte na association am nañ seen cotisation yu wóor yoo xam ne keesu spécial boppam la mais Abou Ahmed macha allah ñu koy def mention spéciale moom moo yor wàllu euh, solidarité bi. mooy yor keesu euh, euh, solidarité bi lu ko ci waay yónnee incha allah bu buñ jugee ci Camp Pénal dinañ dem ci yeneen i activité dem ci yeneen kaso te du yem ci dina xam nga Sénégal dañoo taamu seen dimbal lu ci ëpp weeru koor la mais ñun suñ bos moom dañoo yee lu doon yeewu lu doon nelaw te avant koor lañ ko commencé te day continuer duñ nelawati daara ji yeewu nañ te duñ nelawati seen code part ci réew mi dinañ leen ko jox hada wa billahi tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah